Euh, ñu ne daal dafa mel ni Chérif euh, dañuy taxawal euh, lu mel ni équipe de campagne loolu nag président Macky Sall dañu jàpp ne dafa nekk di ko taxawal jamono ji waaw moom Macky Sall commencé na poser acte soxna Faty ndax gis nga nomination yi déjà euh, Cheikh Tidiane mi ngi koy wax ci journal yi ñu gis démb ginnaaw Mame Boye Diaw bi mu jëlee dogal ne day nekk candidat sanction bi mu ko teg mooy limogé ko au sein de la caisse des dépôts et de consignation bi nga xamante ni euh, presque depuis un an ngi nii moom Mame Boye mu jiitee ko caisse boobu nag ki ñu ko jox mooy Cheikh Issa mii mi di affiché ci écran bi moom nekk maire bu Mbour ah Cheikh Issa Sall xëy na genre récompense la parce que euh, boo xoolee ci wàllu politique. amoon na fi réeroo ak Ousmane Sonko parce que ñoom nee nañ ba nekkee ENA ñoo doon ànd après gis nga ko mbiram bi nga xamante ni fi itoo na fi ba ñoom ñaar ñu ko ci doon giggante ci wàll boobu après euh, son élection ci dëkkab Ablaye Cissé boobu di Mbour mais bi ci gën xëy na significatif mooy Abdourahmane Baldé bi naan Doura nga xamante ni moom dafa doon diriger benn mouvement fële ca Kolda tuddee ko euh, Kolda Debout adversaire euh, ki nga xamante ni mooy Mame Boye Diao la foofu xëy na mag Sall bu ko defee aussi signal politique la bu muy lancé Mame Boye parce que te lim ko jox tamit du n'importe quelle direction parce que këru carte kaay googu ñu naan LONASE quand euh, ku fa nekk tamit gis nañ ña fa en tout cas directeur yi fa ma sa nekk yëpp euh, bambulaa lan fa doon nekkee wala di foye xaalis bi parce que tey loo xamante ne amut contrôle amut dara te moyen la tamit buñ la jox xëy na pour préparer li nga xamante ni moom mooy campagne bi jëm ci wàllu Lat Diop aussi son départ euh, il est annoncé au sein du gouvernement gis nañ géejawaay itam jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom amoon nañ ko fa pour récupérer waat euh, banlieue bi ci wàllu woowu donc mu mel ni kon jëm nañ ci wàllu préparation ci campagne bi nga xamante comme ñoom seen candidat moom mooy Amadou Ba malgré dissidence ak rébellion yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci biir euh, Benno Bokk Yaakaar ak Boun Dionne aussi qui n'a encore dit son dernier moom it que annoncé quand même euh, un remaniement euh, lu lu jar a taxaw parce que remaniement boobu bu fekkante ne premier ministre bi nee moom mooy seen candidat ce serait pas logique que moom mu continuer nekk premier ministre parce que xëy na soxla na am temps bu ko mën a may mu def le tour du Sénégal aller au contact des populations pour jaar ñi nga xamante ni mooy boppam ak programme boobu ànd ceeg xëy na ñi nga xamante ni jàpp nañ ni. suñ àndeek moom ci wàll woowu dinañ mën a am résultat bi nga xamante ne moom la ñu xaar ci moom parce que Amadou Ba depuis un an il est premier ministre bi ñu ko fi doog a fal ñoom li waxoon xëy na comme ni ko fi Mimi Touré doon waxee naan euh, ah, on accélère la cadence Abdou Mbaye ñëw fi naan travailler travailler mais moom ñoom dañ ñu jaayoon li naan gouvernement de combat. bon mais gisuñ fi ay combattant yoo xamante ni moyen nañ lu moyen bu mën a tax quand même ñu régler problème yi nga xam ne sénégalais ñi ngi koy dund parce que boo xoolee lu ci biir a biir gis nañ nga ko ci wàllu xëyum ndaw ñi ak gone yi nga xamante ni ñi ngi jël gaal yi di dem gis nañ ko ci yeneen i yoo xamante en tout cas gouvernement bu Sénégal war na ci gën a mën a góorgóorlu ba ko ba ci gis nga li xew bërki dem boo njaay fële xam liggéey boo xam ne des na cinq mois nag moo gouvernement boo xamante ni day dem ci élection même si ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo ci war a nekk aussi lañ di xaar ci ñoom durée bi gàtt na gàtt goo xamante ni ñu mën a indi boobee saafara muy loo xamante ni xëy na ñu ngi koy xaar d'ici si la puis ñi ko war a composer aussi signal la pour ñu mën a jàppale xëy na Amadou Ba ak son équipe pour peut-être liñ espérer ñoom mooy gagner élection bi. Adja xam nga li dommage mooy quand même ba léegi si signal bi ñuy renvoyer. Mhm. mooy nomination ndekete ci la ñuy. politique yi ci la ñuy yabee nit sax pour mu mën a am moyen wu def politique. Mhm. alors que li ñu koy nommé buntu gérer argent public la. Mhm. xel warul a xalaat sax di dem ci ni dañoo nome nit pour mu am moyen yu mu defee politique. day légitimer presque war a jël xaalis bi nga xam ne suñu bokk moomeel la. Mhm. pour defee ko politique. parce que choix yi nga xam ne nii def nañu ko. daf ñuy delloosiwaat ci ne ñu ndekete société yu mag yi ba léegi taxawuñu taxawaay boo xamante ni dafa war a doon yorin wu sell parce que évalué wuñu sax li nga xam ne moo xew du ma wax peut-être jarul tudd mais entreprise yu mag yi fi nekk. Mm-hmm. muy Lonase muy port muy yoo mën di jël ci entreprise la poste nga xam ne yu bëri jaar na fi ba ñuy wax ni dañu war a teqali ko ak moitié salarié yi parce que. amuñu fa njëriñ lu dul recrutement politique la woon port boo nommé directeur pour mu mën a dugal ay nitam day njëkk a ki nga xamante ni moo fa nekk loolu gis nañ ko plusieurs fois directeur bu ñëw ne ah dama am effectif bu pléthorique mais da ngay gis ni dafay wàññi pour dugal dugal ay nitam hmm. mais deuxième chose bi et c'est très important dañoo am ñun faculté yu mag ñuy hmm. faculté de sciences et de gestion waxuñu ni ku jàngee foofu yaa war a gérer waxuñu ni ku jaar ci business school yi yaay war a nekk manager ak yooyu. mais da gis yenn entreprise yu mag yi. wax dëgg fa yàlla yenn profil yi ak ñàkk expérience ci wàllu gestion ak management. warul mën a tabbi ci loxowu koo xam ne xëy na. Mhm. amul jaar-jaar bi amul njàng bi c'est important quand même. Mhm. amul aussi expérience bi. Mhm. te malheureusement nomination yi nga xam ne moom la ñuy gis ci société yu mag yi fii. ñaale président rek la ak xëy na bokk ci ku kujje politique yi. ba loolu mooy indi ñi nga xam ne sax xëy na am nañu njàng. dañuy dem politique yi pour mën. nekk ci yenn poste yi dem nañ ba poste banque yi sax. yi nga xam ne Sénégal moo fay nommé ay nit. ñuy politique la ñu fay def mais te loolu li muy indi rek gàkk-gàkk lay indi parce que finalement politique bi la ñuy yaakaar ni moo leen fa yóbbu te moom la ñuy tal te dañuy gëm ni aussi moom moo leen fa bàyyi parce que bu ñu politiqueul ñu jëlee leen fa bu ñu féetee feneen ñu jëlee leen fa dangay xool de am na réew moo xam ne am nañu référence ci moom lu bëri bu dee France la boo jëlee entreprise yi ñuy wax comme yi ma tudd fii entreprise yu mag yi muy CAC 40 vraiment ñi nga xam ne ñoo ko jiite doo ci gis koo xam ne mën nga laam-laame xam-xamam jaar jaram expérience am loolu li muy indi mooy entreprise yooyu yëpp dëgër yëpp am taxawaay bu dëgër këcc mais fii nag la poste ba léegi mënula suqaliku ki fi nekk mu ngay jéem dafa mel ni sax moo tane ci redressement bi nga xam ne ni mu ngi ci yoon bi mm. mais xëy na dana xam ni politique moo ko fa teg gis nga ko ba mu demee dans le sud ba président demee dans le sud ay nitam dañoo jël parole naan diw moom dafa mérité poste ministre tu di ko kaasal pour jox ko poste ministre gis nañu démb ay nit yu génn di wax ni poste Aly Ngouille Ndiaye bi de diw lañ bëgg ngeen jox ko parce que mën na politique xam na dëkk bi xam bon sa ne rime absolument à rien du tout dootu nit ñi nag mën nañu am profil bi. la candidature. <laughs> même en Afrique am na dëkk yoo xam ne loolu la def. non c'est am na yoo xam ne dañoo war a dépasser. Mm-hmm. jox ko nit pour xeex keneen. <laughs> parce que li feeñ ci bu Kolda bi moom c'est trop flagrant en fait c'est même bu dul woon loolu sax dañu waroon éviter defee ko loolu justement parce que mhm. évidemment ça va se traduire mhm. sur euh, la pratique mhm. de cette entreprise la par le nouveau bi nga xam ne nii mooy entrée <laughs> voilà et loolu c'est très dommage quand même. c'est c'est dommage mu nekkoon actu commenté bi sept heures jot naa ba tegal fukki simili ak juróom ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.